Nous avons def initiative bu am solo initiative bu moom moy lan moy ñu jël seen xam-xam jël seen doole jël seen man-man ànd di mobiliser wu pour ñëw def réparation télé écran plat gratuitement pour Thiès gratuitement pour Thiès mais également ñu di ko def ci seen yéeney bop association bi nak comme ni ma ko waxee woon démb rek bala ma ci sori dañuy nuyu suñu gan gi toog muy monsieur Pape Doumbouya muy le PDG de Prestige Pape Doumbouya dëkk ci dëkk bi nekk suñu xarit kon bu fekkente ni dikk na ñëw fekk si ni fii ñëw te nag mu nekk ci yéen aussi ki nga xamante ni da ngeen ko choisir ci seen bis bi damay wax ni du ñu mën a def lu rafetlu ko parce que dafa am nit lu am solo nit day gën boppam Pape dama ko da da da bi muy waxee tey suba man ak moom mu ne maa ngi ñëw nii léegi. daf ma na ne man lay jàll mu naa mu ne ma est-ce que xam nga man ci lii laa njëkk a jaar. Mm-hmm. bi ñu ñëwee mu présenté ma grand yu bari fii diw ñoo bokkoon atelier diw mooy sama patron ci loxoom laa njëkk a jaar def naa lii def naa lii ba dama wax na ma lii métier mi def naa ci plus de cinq ans ma ne ko yow kon yow électrotechnicien mm-hmm. mu ne ma man fii rek laa war a nekk. kon loolu bu fekkente ni Pape def na déplacement ñëw bi ñu def lu rafetlu ko Pape bis bi ñoom ñu ànd lëkkaloo ci ak ANAMO ANAMO sa frère Maodo Malick Mbaye jiite ko. mu doon lëkkaloo boo xamante ni dafay wax ne yéen bu ngeen doon seet alal kon da ngeen di dem seeti ñu am alal ngeen jël leen Moussa ñu lay nuyu bu baax a baax mais bi ñu waxee ñëw di indi euh, affaire bi ci Maodo Malick pour lëkkaloo ak ana liggéey dañu ne c'est pour trois raisons benn bi ñoom ci Maodo Malick lañ jokk parce que agence nationale de la maison de l'outil ku ne xam na ni lépp lu jëm ci liggéey yu mel nii ñun dañ ci am loxo pour encadrer leen jàppale leen pepp leen mais beneen bi encore ñu ne Maodo ci dëkk bi la bu nekkee ci dëkk bi jaadu na ñu ñu ñu ñu mais benen bi ci dess moy bañ koy def séntuwuñu ci benn alal mais dañ ko def parce que c'est c'est une suite logique c'est parce que ci seen organisation kon Maodo Malik, ñu ngi leen di sant di leen gëreum di le choix di ngeen porter sur l'agence nationale de la maison de l'outil ma taw fi man ni El Hadj Diallo and ak biram Niang mi nga xamni moy le coordinateur de la maison de l'outil de Thiès bi ñëw itam fekk nañ fi suñu frère Moussa qui est responsable au niveau des câbles distributeurs ak ñu bëree bëree bëri bari ñëw nañ fi depuis démb léegi ñu nekk fi mais Pape ñu lay seedeel nit ñu am joma ngi nit ñu am fulaa ngi nii nit ñu baax ngi nii gis nga kii boo gisee ma woo ko léegi bi ñëw taxaw damay wax ni réeroo mënul am seen biir dafa am benn dynamique bi ma salué démb ba di ko waxtaan ak ñoom Birane ma ne ko Birane est-ce que tu sais que bi ñu ñëwee ba léegi c'est la première fois ma gis une organisation bu ma gisul benn werante gisuma benn werante sa gars yi ñu ci liggéey bi top té ñu jité ëpp fu la taxul ñu jité mais ñu nekk ci ginaaw aussi ñàkk fayda taxul ñu nekk ci ginaaw mais da ngeen a déggoo seen biir mo tax may ñaan yalla yalla la ci suñu borom bu bëggee réussir événement yu mel day ñëw ci su ko il faut lutter contre ça parce que di nga gis dina côté bu né légui xol kenn mais jamais l'accepter parce que yeen li ngeen def de dafa dans l'histoire de du Sénégal, nous gis une pareille organisation, organiser une activité pareille, du coup, au service des populations, de ses propres moyens, de nous pas de faire loolu day wane de yéen wutu leen alal mais dimbali population moo leen tax a jóg taalib la lii laa ci bëggoon wax kii nag mën naa def ci moom seede li ma mën a defee seede ci Maodo Malick nga directeur général nekk ngeen baal ma mon leader politique mais nekk frère

di la encouragé di wax sunu borom ya xam li nga bëgg yalla ko yalla def ci dëkk bi na dëkk et taxawaay bi nga am ci dëkk bi gars xam nañ ko nit ñi defuñu nit ñi defuñu donc force ça va arriver un jour en tout cas loolu laa bëggoon wax di leen sant au nom de lalamo mi nga xam ni partenaire privilégié le par rapport à ça di ñaan yàlla lépp luñ fi def yàlla na jëm kanam mais association bi man dama leen nawloo di fond du cœur je te jure depuis hier man dama wax ne lii dama bàkkantuuma sax mu tas parce que yéen nekk ak yéen ma neex parce que dama gisee nit gi ci biir ak yéwén gi ak mbaax gi ne ci biir xam amul critère d'âge doo xam ku mag doo xam ku nekk ndaw ñëpp àndandoo di liggéey loolu daal laa bëggoon wax taalibe bi di la si jërë ngeen jëf merci. vraiment comme ni nga ko wax rek je suis agréablement surpris man xaw ma woon sax ni association nii la demee.

19 sëñ voilà 19 bi Zeyna parce que nous on a cheminé ensemble. merci ah Bécaye on a cheminé. voilà nous nous ku nekk mën borom parce que euh, on a parcouru des moments extraordinaires ñu ànd ci ci ci ci place wu euh, chez ah, ah, on a passé des moments extraordinaires.

Ah, ndeysaan voilà ñu ngi accompagné bi yëpp daf ko assisté donc euh, Cheikh Diop moom tey moom nga gis na rek <laughs> mooy Cheikh on a tout fait ensemble beaucoup grand bi nag euh, grand bu bien ngi ni kii xolam moo tax ci lu bari doomu ko mën a wax quoi waaw oui waaw Boubacar moom laa njëkk a gis bobinage. waay waay waay Thiès dañ ko doon recherché bobinage. bobinage. waaw moom moo ko njëkk a def. c'est le Béguinage moom bàyyi ko ci boppam jusqu'à de nos jours donc c' est des moments extraordinaires qu'on a vécu bu bu ñu tàggoo moom ici nekk ci beneen trajectoire mu retrouvé waat ici ñëwaat fekkaat leen donc je dois dire que lii lu rafet la c'est une famille

ah Blay nekk suñu patron xam nga yooyu suñu retrouvaatee fii baax nañu ko wax ci kanamu ñëpp métier bu noble la métier bu extraordinaire mais ki nañ ñu ñu pas son nom maam dundu nit ki waaw yooyu nag bon c'est extrêmement difficile parce que nit ñi population yi léegi xamuñu technologie xamuñu coono bu nit di daw xamuñu euh, li ci nit di def parce que c'est des choses yoo xam ne don la bu yàlla may ñeen ñi jaaruñ ci yenn école extraordinaire yi pour acquérir certaines expériences pour mën ko exercer yàlla mooy ci may ñu nekk ci di parents jusqu'à de nos jours boo demee ci dëkku tubaab yi boo leen wax ni lii mën nañ ko defar dañuy reetaan parce que c'est des objets perdus et fekk ñu jàll ko noonu donc bu ñu ñëwee fii nit ñi di ko mën di ko reporter yi di ko laaj ay accompagnement tey jii su ma gisee anamo euh, duma bett quoi parce que xaw ma ne sax moo leen accompagné donc su ñu ñëwaatee fii fekk euh, euh, grand Maodo que je salue au passage El Hadj nekkal ko fi accompagnons accompagner population mais nous nit ñi lii rek accompagner les mm-hmm. li nga xamante ni am nañ ko ñu indi nga en tant qu'expérience aussi ngeen dooleel leen. permettre ouverture ci donc structure humaine en amont, ANAMO PRAFPT ainsi de suite dañu war accompagner les populations. parce que structure humaine mel parfois dañuy manqué de trop. de trop donc man euh, je lance un appel à Sophie.

Euh, pourquoi pas nous dans les pays étrangers et def une formation parce que nous créons un emploi nous avons tout nous, nous, avons emploi de emploi mise à jour parce que la nouvelle technologie fait des avancées et ça passe très vite donc euh, nous lancé appel Merci. mu a ubbi mhm. jàppale sama gars yi di laaj woo Sophie ñu dëkk Thiès ñu ñëwaat di gën a accompagner ñu parce que il en a besoin dañ ko soxla ñu wax ko ñu bañ ko wax mhm. dañ ko soxla parce que technologie bi sax passe comme de l'éclair donc ñoom it bu deful mise à jour mhm. dañu en retard donc je tenais à le dire ñu nit liñ ci mën liñ ci mën a accompagner incha allah dinañ ko def ñu jàppale ñu bañ ñu jàppale ñun du ay politique moo ñu boole on habite

bëgg naa ngeen taxawal ko su ngeen ko taxawal ngeen invité mu ñu a bu ma jiitee association bi ma gis koo xamante ni def ci nekkoon ba nekkatu ci tey mais ba tey itam ñu ngi ci audiovisuel parce que Ibi télé am na rajo donc kon ñu ci cadre ba tey léegi nag su ma ñëwee taxaw fii moom mu taxaw seede seede loo xamante ni tey ñu ngi war taxaw di ko joyanti

Il faut nit ñoo xamanteni lu baax ni seen loxo ci loolu Malik ci la bokk pap ci la ak ñeneen mais ñoom ñaar seen bokk ci loolu ma pëlëñ tax dañu ñëw lui aussi il travaille sur ça il a fait cinq ans ça ci la jaar looloo tax la spécificité il est nostalgique xam naa la jox voir est-ce que tu as oublié ou non. Voilà, c'est ça. Euh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne savais même pas que Liam Donc, voilà, donc on doit. Voilà. Donc, la population. L'IREC demande les autorités. Donc, l'IREC, on l'encourage. Et personnellement, au nom de l'association, moi je l'encourage et je le félicite. Merci beaucoup. Merci. Parce que c'est pas pour lui. Hmm. Il a fait pour toute une génération de formateurs ici à Thiès. Donc, on doit organiser ça maximum jusqu'à ce que les gens maîtrisent les nouvelles outils, les nouveaux outils de travail. Parce que c'est extraordinaire ce qui se passe dans l'audiovisuel. Voilà. voilà. Donc on l'a on le laisse. Merci. Merci beaucoup. Donc euh, nous euh, voulons remercier si c'est Euh, prestige Soumou prestige FM Soumou te yaa ñu ko andil fii ci Thiès ñu ko ciy remercier au passage sa teewaay rafet na wane na ni doomi Thiès nga wane na ni électronicien ak informaticien li ñu def ñor na la moo tax nga ànd ak euh, télévision bi ñëw donc ñun amuñu sa fay donc à travers les électroniciens à travers leur président monsieur Talibou Traoré à travers nous les informaticiens que nous sommes nous vous remercions euh, que Dieu vous accompagne. Merci.